c'est bon euh, ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax a baax a baax di leen ziar comme tous les jeudis da ngeen di am euh, live de Mass Mboup euh, ñu ngi nuyu suñu mbokk internet yi nga xamante ne ñoom ñooy faral di ñu accompagner ci live bi ñuy def chaque jeudi live de Mass Mboup nag dañ ciy faral di dalal ay gan gan yu am solo ci réew mi waaye bi yoon nag mu doon live bu spécial live boo xamante ne dañ cee dalal. gan goo xamante ne kenn dootu ko présenté Sénégal euh, muy Baye Mbaye Niass MC Baye Mbaye Niass MC nag bu ñu ko waxee euh, sa xel day dem ci Maulana Cheikh Ibrahim ndax euh, bokk na ci njabootu ba Maulana di di di doomam waaye nekk koo xamante ne aussi day wax ci situation politique gu Sénégal mais aussi topp askanu Sénégal ci ci lu bari ci actualité rawatina ci sujet bi ñu war a waxtaanee muy sujet bi nga xamante ne mooy procès Ousmane Sonko Adji Sarr Baye Mbaye Niass MC moom moo génn woon. audio yi moo yoroon audio yi ah lu ay révélation yu bëri yoo xamante ni tax na sénégalais yi xam fa la dëgg gi féete jóge na ci moom Baye Mbaye Niass MC Baye Mbaye Niass MC nag euh, moom la ñu dalal tey jii euh, ci euh, live de masse boobu Baye Mbaye Niass MC ñu ngi lay nuyu cheikh bi allo allo Baye Mbaye Niass MC allo naam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah bi maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak uh, suñu mbokk sénégalais yi. waaw uh, sëñ Mass maa ngi lay uh, nuyu di nuyu àddina bi yëpp rawatina Sénégal auditeurs yi nga xam ne mu ngi ñuy déglu di ziare sama xalifa Mawlana Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass di gërëm sama sëriñ Cheikh Mouhamed El Mahi Alioune Cissé di nuyu daal ñu ñuy déglu rek di ñaan yàlla nañu waxtaan ci Sénégal ba yàlla indi jàmm daal incha allah ya rabbi ci barke rasulullah macha allah Baye Mbaye ah. euh, mais Baye damay damay tàmbalee ci sa sa génn réewum Sénégal parce que ñu bëri ñu ngi doon xaar tey ji Baye Mbaye Niass MC tey tribunal mu ñëw témoigner parce que mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ay ojo da cee génn te ojo yooyu daanaka bu sénégalais yi xamee lu bëri. ci yow lañu ñu xamee loolu sa discussion conversation entre yow ak Adji Sarr euh, lan moo waral Baye Mbaye Niass MC euh, génn Sénégal lan moo waral loolu. waaw Mass waxta euh, wax jooju laaj boobu moom dama ci kontaan lool ndax Baye Mbaye MC doomu Sénégal la produit Sénégal la te lum dee dee Baye Mbaye MC am na lum liggéey ci Sénégal loo xam ne nit ñi teg nañ ci seen bët teg nañ ci seen bopp damay wax ne Baye Mbaye MC laata ñu koy xam ci affaire Adji Sarr bi am na ñu ko xam ci Kaolack googu ma dëkk ak feneen ci social Baye Mbaye MC dimbale na ñu bëri ñu taxawal kon man produit Sénégal laa boo xam ne damay dimbale sénégalais yi fa nekk di leen teg ci yoon rawatina nag ma yore ñaari junne ak juróom benn fukk lu tegal ci loo xam ne ci ay xale yoo xam ne maa leen yor di leen teg ci yoon ñii di liggéey ñii maçon ñii miniser ñii mécanicien ñii ñëpp muy association Shababul Fayda àddina yëpp xam ko kon du yoon bay Mbaye MC di jógee Sénégal di ko fa bàyyi di ñëw di toog fii fii du sama place sama place mooy benn ma nekk sama baay ci lu mu nekkoon munuma ko cee nekk ma nekkaat ci beneen business boo xam ne tamit lu may dimbalee ndaw yi ñaar yooyu rek moo fi nekk li ma tax a dafa am uh, sama xarit uh, sama doom muy Cheikh Baara yaay uh, dafa am benn jigéen boo xam ne jigéen bi soxlawul sax may tudd turam ndax man xaw ma ko intéressé wu ci député yi la nekkoon Amérique fii ñu naan mu ngi assemblée nationale benn bés dafa dégg ndaw si di xas MC Niass ba muy xas MC Niass Cheikh Baara toog ci tele bi yaakaar naa ci Walf la ne pourtant ne ko yow ndaw soosu te ñëw def la député léegi kooku dama xamul lan mooy place am foofu njëkk nañ waxante dëgg parce que jikko Sénégal dafa yàqu kooku lan mooy place am ci foofu koo xam ne jàngoo munoo tari A munoo tari B xamoo dara xamoo réew mi sax ni muy doxee lu dul rek am na làmmiñ boo xam ne ñaaw na ñu jël la dugal la def la député kooku nag moom la eh, Cheikh Bara wax ne ko MC mi ngay saaga de di ko wax lu nekk pour pourtant mu ngi yore say enregistrement yoo xam ne trente deux minutes la te musoo koo dégg mu wax ak yow te yéen kilifa yi nekk ci réew mi ñu toogoon ak MC Niass ci affaire Adji Sarr yëpp na ngeen xam ne MC kenn ku ci nekk ah am na sa enregistrement mhm. léegi nag mun naa am kilifa yooyu ma toogoo nag te kilifa yooyu mënuñoo xëy bés te gisuñ Macky Sall bés laa lum dee dee ci bés bi danañ wax ak Macky Sall lu ëpp téeméer yoon. kon loolu ma yore xam naa ku ci nekk ci ñooñu ñu tiit bañ tiitee xam naa ñu bugg maa booleeg seen nit ñi euh, xaw ma daal ñu may toppaka sonal ba ma daw daal ba ñëw. mais ñëw bi ñëw nag wax dëgg yàlla ba ma ñëwee tamit sant yàlla. ñëw naa euh, maa ngi ci jàmm. avant avant ñu àgg avant ñu àgg ci jàmm jooju ah. avant ñu àgg ci jàmm jooju Baye Mbaye MC ah. est-ce que Baye Mbaye MC dafa recevoir ay menaces de mort wala menace de liquidation yu tax mu génn réewum Sénégal. waaw benn am na benn jour man may dem Kaolack. Mhm. maa ngi koy nettali parce que xam nga fii Sénégal dañoo toll foo xam ni sooy nettali. Mhm. nga baal ma ci terme nuñ koy jàppee dañuy jàpp ne li ngay wax yépp ay fen. parce que réew mi moo toll foofu. parce que réew mu Sénégal toll foo xam ni tey da xool tey ci wàll rek journalisme réew mi nga xam ne suñu réew la ëpp na ci bëri na ci loxo loo xam ni ay jaxase la ci ay média yoo xam ne ñoo jaxase Sénégal. Sénégal su yàqoo nii rek am na média yu bëri yoo xam ne seen loxo ñu nga ca ndax ñoo yàq Sénégal nit. da ngay war a wax li nga xam ne mooy dëgg ñu xam ne dëgg googu nit ñi mën a eh, jaar ci eh, dëgg eh, googu. moo tax nag man mii ci boppam yan média nga wax yan média ñoo yàq Sénégal. parce que bëgg naa wax leer aussi. allo allo Baye Mbaye da ne ay da ne afam ay média yi yoo xamante ne ñoo yàq Sénégal ñun bëgg nañu xam yan média am ñoo yàq mhm. Sénégal. non man man moom ndax damay wax sama dëgg rek te yàlla tax. Mhm. parce que man su ma seetaanee seetaan gis ni ñu bindal ma ay bind yu bëri yoo xam ne wóor na sama diggante ak yàlla mm-hmm. wóor na sama diggante wallahi lazim ak alquran karim la ñuy wax dara jegewu ci mm-hmm. damay xam ni kon ñii ay jaxasekat lañ loolu mooy euh, te euh, bii nga xam ne mooy les mooy rek mm-hmm. seen journal yeeg seen wax duma ko nëbb observateur parce que man liir naa article boo xam ni mhm. ñu bind ko ci man <coughs> ci wax yoo xam ni daf may jaaxal dégg nga ay nii ay naa xaalis ak nangam yuñ ma jox ak yooyu fu ñu ko teg mhm. musuma gis journaliste wal bu mu euh, euh, journaliste TFM mhm. bu mus ñëw ci man ne mu ngi may interroger amut musta am mus nañ may invité benn yoon te boobu 2011 la ay Diop Fall moom moom mooy invité. Hmm, kon kon da nga da nga bëgg a wax ne foofu maanaam euh, dafa am benn euh, xeex bu waa l'observateur ak euh, groupe TFM bu ñu bu ñu jëmale ci yow di yàq sa der boobu nag. Hmm. journal boobu nag. waaw ngay tudd noonu ak seen kii bi. wax dëgg yàlla su ma waxalee dëgg rek te yàlla sama diggante ak ñoom. Hmm. lu ci bëri dañ ñoo tooñ. ok. te nuñ ma tooñee noonu laa gëmee ne noonu lañ tooñee ay yeneen doomu aadama. Mhm. parce que ñoom ñooy jaxase xelu nit ñi di wax li nga xam ne du dëgg. te maa ngi waat ci yàlla li ñuy wax wallahi lazim dara du ci dëgg. Mhm. maa ngi koy seedeel sénégalais ok Baye Baye Mbaye Niass MC léegi euh, nag waaw. dafa am dafa am question ma la bëggoon laaj parce que ngay ngay kilifa diine. Mhm. Euh, bokk ci euh, njabootu Maulana Cheikh Ibrahima di doomam. Euh, léegi ñu gis ñu ñu gis euh, Baye May May Niass si recevoir ay menaces ba mu tax mu génn ñu bëri ne dafa am lu muy sauvé moo tax mu génn euh, ñu gis amuñu gis dégguñu si ci famille bi kenn jug taxaw wax lan moo lan moo waral noppi googu ci ci famille gi aussi. waaw loolu nag man wax dëgg yàlla de jiwuma ko kenn te taalibe Baye Niass xam nañ ne jiwuma ko kenn. Mhm. ndax man tey ci sama kër Baye Mass dama la koy wax. Mm-hmm. ci rajo laay waxee mm-hmm. man li ma liggéey sama kër baay amul kenn kenn kenn sama doomu baay bu ma ci ëppale mm-hmm. man suñ déggee suñ commencé dégg Medina Baye dégg ko ci ay révélation yoo xam ne yu doy waar la kooku à cause de MC tey jeunesse bi soo gisee ñu dugg ci faydu bi di rayante di daw di dugg ci faydu bi à cause de MC Niass la te du ci at yi ci at yi yàggee la ci jamono yi rappeur ya ci jamonoy jeunes ya ci jamonoy nangam tey am na ñu bëri dugg nañ ci faydatu tijaan yi bi nekk ay taalibe Baay à mhm. cause de M kon man su ma nekkee doomu Baay mhm. ma am samay samay naataango laay wax samay samay samay nawle mhm. say nawle mooy say mag wala say rak dégguma même su fekkee ne dama lay wax rek maas. Mhm. gis nga kilifa kilifa rek lay doon. Mhm, absolument su fekkee ne man damay fen sax ma taxaw créer benn affaire ne damay fen te ma mhm. bokk ci famille bi famille bi war na nañoo mën a jóg lijjante xool lan moo xew. su fekkee ne seen rakk day fen sax ñu xam ne kii day fen. waaye du ci kenn ku ci wax benn mot. kon kon daal famille kon daal say frère ak famille famille religieuse bi bu bu ñaseen dañ la seetaan ci combat bi say menaces yeeg ak li nga subir yëpp ba génn dëkk bi waaw waaw waaw dafa am lu ko waral nag dafa am lu ko waral xam nga ñun euh, maas mhm. euh, dafa am yoo xam ne jarut wax waaye ci kanam lépp dina feeñ ok gis nga kër gu mag mhm. gën a niil suñ kër ci xam-xam maa fa gën a niil mhm. maa fa gën a tuuti waaye man la yàlla may kër gu nekk dafay am nit koo xam ne yàlla yow lay may mhm. lay may nga nekk fa am fa tur am lépp kuy seet yow lay seet mun nañoo mhm. tudd xale amul fooy tuddee Kaolack te doo tudd MC Niass mhm. amul fooy tuddee xalifa Baye Niass te doo laaj ca MC Niass munta ñàkk loolu may yàlla la du sama du sama càkkuteef man yàlla moo ma may loolu kon fiiraange munta ñàkk ok waaye man mun naa doxal sama bopp ci lépp daal loolu daal awma hmm. ci problème maa ngi fii maa ngi sant yàlla li lay li li Sénégal bëgg a xam ndax M-Signes américain la ak lan moo koy def muy dem ak ñëw loolu lañ bëgg a xam te loolu mun mënuñ koo xam man daal fu ma bëgg a dem ci àddina bi dem fa te tranquille daal alhamdulilah maas sant yàlla eh, jërëjëf MC si Niass léegi dañuy ñëw ci ci actualité maanaam dafa am ay révélation yoo xamante ne euh, conversation bu amoon yow ci sa diggante ak ba am ay ojo yoo xamante ne mhm. askanu Sénégal yëpp jot nañ ci Adji Sarr di wax di confier ak yow waaw ba ba ñu tudd ci sax mhm. ay ay ay mbirum xaalis ak mbirum yeneen euh, dañu bëgg nga dikkal ñu ci sa mhm. conversation yow ak Adji Sarr ak révélation yoo xamante ne def na ko jëmale ci dossier bi diggante moom ak Ousmane Sonko waaw soxna Adji Sarr de wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla delloo si xelam ba ñii téye ko di lobby bii nga xam ne ñoo ko jël teg ko ci yoon boo xam ne du yoon ba réer moom ba gën a gëlëm famille dem baaxul la ma ko waxoon rek laa koy waxat ndax moom sama mbokkam taalibe la mhm. te man may jaamu Baay Ñas maay mbaamu Baay Ñas maay xaju Baay Ñas mhm. ndax Baay Ñas rek laa bëgg kon la ma koy la ma yéene sama bopp moom laa ko yéene mhm. la ma ko waxoon ca njëlbeen perdant c'est toi perdant bi yow la yow Adji Sarr parce que te li ñuy ut ñoom ñii ma ne ko bul fàtte na Macky utu ko mhm. Mamour jàll moo am fayantoo pour dem jël la di la xeexoo ba gouvernement jot ci bañ mooy ci yow mhm. niñ lay garde niñ lay joxe oto seen aajo bis bu soxlaa bu fajoo ba pare yow fàtte nañ la mhm. te boobaa yow dooto amati looy tekk ci réew mi te bul fàtte tamit ne da am ay doom suñ la waxee ne la doo sëy Sénégal tamit ñaanoo yàlla mën ngaa sëy feneen te ñaan nga yàlla am ay doom te doom yooyu ñaanal yàlla aji mukk say doom ñu gis say audio buñ gis say vidéo buñ gis say parce que naqar la boo xam ne daf koy topp ba mu dee. léegi nag li ma indi ci aji noonu ci révélation waaw mhm. man xam nga dama nekk benn doomu sëriñ boo xam ne sama lépp damaa jiital yàlla man yàlla laa gëm ndax. àddina mm-hmm. bi yëpp ñu ñuy topp nii ñëpp ñuy suñu wasila yi dañ cee topp nii rek. pour gën a dëgëral suñu suñu suñu gëm-gëm wala pour ànd ak ñoom ndax aadal la fi wala nangam waaye man lépp lu may def yàlla laa ko waaye nag bàyyi gis laa gëm taalibe ci jàlla maa ngi lay seedal maas ne la amul lu ma ci yokk amul lu ma ci wàññi amul lu ma ci wax man aji saar la may wax ci boppam xaw ma ko. Mm-hmm. mënuma laa wax ne la kii mooy Adji Sarr suñ toogee. Mhm. mosuñoo joxante loxo mosumaa am numéro téléphone am mais sama jóorin ci boppam. Mhm. Adji Sarr ci moom la jaaree nekk moom gis na ma moom da doon ñëw di sukk di ma nuyu. Mhm. di ñëw Mérina di bokk ci bale di bokk ci nangam kon yeneen taalibe kon man su ma demee man tey dama koy wax mu leer li tax man Adji Sarr ma arrêté ko. Mm-hmm. laaj ko ko moom ci ñan la jóge man musuma sàkku na na ma oo ndax aw ma ku ma koy mën a jotee ba koy oo wala mm-hmm. nangam moo tëb woo ma ndax ay waajuram ñoo na ko woo ko ci liñ wax waaye moom moo ma woo saxaluma ko lem waxuma ko lu ko neex te oote bi yëpp ngay dégg audio yi ngay dégg yëpp ojo yi yëpp tegalantaw bi mm-hmm. yaakaar naa deux jours la trois jours la mu jeex maa ngi moom déggante Adji Sarr tey wallahi alazim ba muy wax wax ji kenn sexalu ko lem kenn sexalu ko suukar da doon wax ak xaqulaayam taala mhm. te naa la wax maas am na yeneen audio yoo xam ne ci ay saraxu dinaa mhm. ko génne fan yi ñu dégg ko ah, kon am na yeneen kon am na yeneen audio yu des marel bil bil billaahi wallaahi tallaahi barke alquraan karim man may wax ci moom di ko mhm. xamal dëgg muy wax bay saraxu pour bëgguma gis sax pour bëgg a ñëw ba Kaolack pour fekk si ma foofu pour toogal te toog boobu ñu toogoon ñëwuñ ci lu dul pour corrompre ma woon. Mhm. man maa ngi amee audio yooyu. Mhm. man du ma wax loo xam ne du du dëgg ci man. Mhm. Adji Sarr li muy wax nii taxaw ci tribunal bi di ko wax nii. waaw parce que Adji Sarr yow foofu laay dëkk yow Adji Sarr ci tribunal bi Adji Sarr nee na audio yooyu mu doon def da doon fo waaw parce 14 morts moo am ci dossier bi wala wala plus de 18 mais Adji saar bi ñu ko laajee ci audio yooyu nee na yooyu da ko stratégie la woon rek. dama lay wax maas benn affaire. Mhm. Adji Sarr yàbbuma man ñemewuma sax. Mhm. baayam mi ko jur laa la wax ci boppam. frère bi nga xam ne benn frère la am muy Famara Sarr. Mhm. waa jooju di ko topp naan ay magam laa kii bokkuñ ci Adama Awa xamuñ ko. Mhm. Magg Adji Sarr ba léegi mu ngi topp ci man. Mhm. wallahi lazim démb démb barkaati démb rek dégg naa foofu kaalam. kon ñoo Adji ñoom ci seen bopp seen dëkk yi nekk naa fa héros boo xam ne ci île de Saloum. Mhm. ku ma xamul demal nga laajte ma ci île de Saloum. ñoom suñ ko gisee leneen la tal waaye taluñ sax di nangam ba ajisaar Sarr di ma yeb man di war a toog ak man naan dafay foo. Adji Sarr foowut de. aji saar dama ko dikkee ci yàlla mu tiit mu ñëw ci wàll sentiment mhm. dem na ba santiment yéen xam ngeen na feeñ na fa parce que dafa dem ba mujj gi di wane ne dafa ma bëgg mhm. di nettali aji saar da doon nettali li xew mhm. aji saar waxtaanul di foore da doon nettali li xew li xew la nettali seetaan naa ay wax yoo xam ni nee nañ damaa jël list bi bindal aji na ko liiraatal ci lii mooy waa ji nekk euh, seen TV te mu dëkk jurbel te xees ni. Euh, mhm. chroniqueur boobu xaw ma nan la tuddati. waaw te muy xoloog sëñ Saliou rek. Mhm, absolument gis naa ko. gis naa ko moo tax ma ne nit ñëpp di wax dama leen di seetaan ma gis ne murit saadex la ak mhm. nu muy waxee di waat ci yàlla te li muy nettali wallahi alazim aqsimu billah dara du ci dëkk lii dafa jaar nii lii jaar ne kon am na ñoo xam ne dañoo nekk ci télé bi di liggéey ci suuf. Mhm. di liggéeyal gouvernement bi di réeral peuple Sénégal bi. di oote ci kaw di wane ne ay gëm-gëm lañ am fekk gëmuñ dara. Mhm. gëmuñ Sénégal. ok mhm. seen poche lañ gëm. mais bay bay ndax yii di am nii ci suuf nii. dafa am dafa am laaj moo la bëgg laaj. ci ci wallaahi maa ngi lay wax na la. waaw xaalis dëgg moo ci génn ndax xam naa ci dara. ah bon. ndax jaar nañ man jaaraat ci man xaalis dëgg cee génn. mbirum mbirum aji saar bi non da nga wax xaalis da cee génn mbirum aji saar bi xaalis fan la fan la génne ci mbirum aji saar bi ak ñan lañ bëgg bëggoon corrompre ci mbirum aji saar bi parce que yow li nga ci xam bëri aji saar bi dama lay wax. Mhm. képp koo xam ne. défendre aji saar. surtout ngay dégg ci mu ciy sonn di ci rey boppam. Mhm. weccat bi ci nekk moo tax ñu koy def gis nga. dama laa bëgg a wax dafa am ñoo xam ne espécial dañ leen jënd teg leen ci télé yi. Mhm. ñii ñu jël leen teg leen ci euh, réseaux sociaux yi ñii ñu teg leen ci nangam ñëpp dañ leen di fay par fin de ah bon. ñëpp am salaire man maa la wax lii. kon am na ñu ñuy fay salaire ñu ñuy fay si ci ci dossier Adji Sarr bi pour pour ñu pour ñu yàq der Ousmane Sonko. maa su ma la waxee man su ma toogee li may wax nii sosuma ko billaahi wallaahi tallaahi man maa toog. Mhm. xam nga yàlla lu mu lay tombeek ma toog nii di waxtaan ak kenn ma toog Marème fay ci boppam oote moom moom moom numéro am oote mhm. nii may dégg nii mu oo kooku ku jigéen kooku na ko yow damaa bëgg nga ñëw bokk ci suñ groupe bi parce que di saaga Sonko di ko attaqué kan Marème Faye fay Faye Sall jabaru jiitu réew mi danga bëgg wax ne moom moom ci boppam moo bokk ci ñi recruté ma ne la Marème fay mooy fay ñëpp ñuy wax noonu ñëpp ñoo leen di fay. wallaahi lazim. képp koo xam ne man mii laa la wax tey maaf tey tey tey nii. Mhm. su ma toogoon nii na léegi ci Sonko. commencé koo saaga commencé koo xas commencé nàngam léegi sama poche duy ba fees. Mhm. parce que bëggoon nañ maa duyal ba ma fees maa ko bëggul. Mhm. kon ku nekk ci Marème Faye soo toogoon di saaga léegi laa la wax Sonko Marème Faye commencé laa jox léegi. kon. Adji la ma koy digal mooy lii ñu ko dugal nii yëpp dem nga tribunal Sénégal tey ñoom ñoo am problème. ok ñun ñoo am problème ak Adji ñun ñoo am problème ak gouvernement bi fu mu nekk. Mhm. parce que Mass dama lay wax benn affaire. waaw Mass dañoo jël lu ndaw di ko fooyee ay bakkan dem ci ay alal dem ci. Mhm. ñu toog ñaari at ñetti at ñu naan atte. Mhm. tey Sénégal tey amul kenn koo mën a wax maas ci kaw àddina mhm. su fekkee dëgg rek neex na atte bi ngeen gis bërki démb Sénégal ba muy Sénégal ba léegi ñoo gis atte bu mel noonu ok ci laa ci laa doon jëm ak yow sax parce que procès bi nga baal ma mais mhm. procès procès bi euh, procès la boo xamante ne Sénégal yëpp dañ ko doon xaar muy diggante Ousmane Sonko ak Adji saar ñu gis ne Ousmane sonk wuyuwul ci procès ci procès boobu waaye dañu gis ci procès boobu aussi euh, aji Sarr di wax wax yoo xamante ne Euh, wax wax wax yu doy waar la naka naka nga jàngatee procès boobu ñu bëri tuddee ko procès de la honte. waaw moom laa lay wax nii. Mhm. parce que Adji Sarr man sama jàngat li ma jàngat ci moom man su ma nekkoon su ma yàlla mayoon ma jëloon ko bu yàgg coow lu di yegg si fii ndax maas nañ fàttalikoo dama ne woon ñëw leen ñu waxtaan ndax waxtaan mooy solution bi. mooy def sorti dama ne ñëw leen ñu waxtaan dëgg la wala du dëgg. kilifa waxtaan leen. na leen ba pare na leen. kenn naaw la interpellé kilifa diine ci ci waxtaan woowu. Mhm. tey suñu waxtaanoon kilifa yi nga xam ne tey ñu ngi may dégg muy kilifa diine muy kilifa aada muy ku mën ci doon suñu oowoon M Senias ñëpp toog ñu waxtaan est-ce que dana am ay moor est-ce que dina am ay yàqu-yàqu est-ce que dana am ay nangam nàngam moo tax ma ne ko Adji saar amul avocat amul ku koy dimbale Adji Sarr amul kenn ku koy dimbale ñëpp dañ ko def pour seen intérêt soxla parce que xoolal jigéen ju mel ni yow nga dem ba tribunal yow kuñ violé wala kuñ def dara da ngay ànd ak naqar doo bëgg sax wax tribunal sax du la intéressé yow nga dem en tant que jigéen avocat bi taxaw tiim la kooku nga xam ne El Diouf la mhm. man damay wax ne wallahi man damay wax ne du ma ko mus wax wax ju bon. Hmm. waaye xam naa nit koo xam ne la dee rek moo ko teree dugg safara. mooy El Hadj moom xam moom xamal na ko boppam. Hmm. wa wallaahi laazim nit ko xam ne la dee rek moo ko teree. wallahi laazim parce que ci lim def ci bàkkaar hmm. El Hadj dama lay wax man man man sosolu ko maas billahi wallahi su fekkee ne lii may wax nii ma yeewu suba suba suba suba gis nga ba ñuy mille 2014 mairie Kaolack. Mhm. Ah, Wardini mu ngi ci bokkoon man mii maa jiite woon mairie de la euh, au mairie de euh, la maa ko jiite woon Kaolack xëcc ko man maa jëloon onzième dix huit candidats la. gis nga boobu El Hadj Diouf mu ngi mhm. Kaolack. man na ma baal rajo wax ñëpp di ma dégg. Mhm. mais jabaru kilifa boobu tey am naa samay doom mu mag yoo xam ne mun nañ koo seede ñu ngi ci wetam mun nañ ko seede mhm. mu tëjoog doomu mu tëjoog jabaru kilifa di njaalo ci biir hôtel Relais subhanallah astaghfirullah mm, mm, doy na waar doy na waar loolu accusa accusation yi xaw a doy war la bay bay tey ko wax su fekkee ne su lu may wax su fekkee ne li may wax nii yal na ma yàlla lakk billaahi wallaahi tallaahi barka alquran al karim ñeneen ñu ko fekke mais loolu suñ ko tuddoon àddina bu tukk la te li ma lay wax nii ñu ko fekkee ñu ngi dund ba tey ñu ngi nii ñun ñu ngi Kaolack mm-hmm. bañ ko songee di ko wax mun a xamutoon ne mais kon xamutoon ne am na jëkkër kon mais mbay mbay yaa ngi yaa ngi jëñ ad euh, maître El Hadj Diouf adultère muy muy sëy ak jabaru jàmbur te loolu doy na waar de aussi man maa ko seede man man mm. Baye mbay ñas mm-hmm. man maa ko seede billahi wallahi tallahi su fekkee ne lii may waat du dëgg yàlla bu ma gisanteeg àjjana. Mhm. ok ok léegi ñu ñëw ñu ñëw. kon lu may lu may wax sosuma nga baal léegi nag ma ñëw ci dossier bi ma ñëw ma ñëw foofu. waaw ma ñëw foofu. Mhm. El Hadj Diouf war naa taxaw xool ku mel ne Adji Sarr ëllëg mu war a am doom. Mhm. ami ay jabar mu naan waaw. violé nañ ko ba mu roore. doy na waar fu mu nekk nii moo tax pax bi. pax bi yëmbax ak nangam nangam yow mm. loolu yow loolu mm. kenn du ko nangoo wax sa doom ci tribunal waxuma la nangam mm. xoolal xale beneen jigéen bi bañ ko waxee laajee ko sax am na kersa pour wax dara ci làmmiñam mm-hmm. ko jàngaloo dañ koo jàngaloo wow bët mm-hmm. liñ ko jàngaloo mais Baye Mbaye su ma su ma lay dégg su ma lay dégg tamit dafa man ni su ma lay dafa man ni Adji Sarr da nga jàpp muy wax lépp dañ ko ko waxloo Adji Sarr lépp lu mu def dañ ko koo defloo lépp lu mu wax dañ ko koo waxloo. Mhm. man actualité bi yëpp dama koy seetaan ba bërki démb rek moom ak ñoom booy boobu di saaga te nekk itali xawma ma mhm. gis naa seen seen seen may euh, benn direct bu ñuy def noonu. Mhm. bañ bëgg a wax wa mel ni ku réeroo kon nga xam ne ñu loolu yëpp ay complot la. léegi nag li ma bëgg a wax mooy. foofu euh, maas. mooy Sénégal trois ans jàppal bàyyi. économique bi wàcc na. 18 mm, morts. ñu ci dee bari na. Mm-hmm. ñëpp di xaar di xaar di xaar ba jouru procès bi. Mm-hmm. ñu toog jouru procès bi yaakaaroon nañ ne lu ne. ñëw rek ñu xam ne kii Sonko moo ko def rek ñu jàpp yóbbu ci kaso bi. Mm-hmm. te man maa ngi doon xaar àtte dëgg. mais Adji Sarr mi nga xam ne tey moom moo plainte xoolal ñaata témoin Sonko yi ñëpp ku ci nekk li ngay wax dafa xelu ak lu leer la. Mhm. Adji Sarr amul benn tey mooyee wala amul benn élément boo xam ne mun na koo indi loolu naxa sa nang la. Mhm. gis nga su fekkoon ne justice am na Sénégal gu wér. Mhm. wallahi ci biir àtte ba. man su fekkoon ne maay président bi man su fekkee àtte rek. ci biir foofu laay jële ne leen téyel leen ma ndaw si yóbbu leen ma ko seet leen ma ñu nekkoon ci gannaawam yëpp ñu dem jàpp leen yóbbu leen. parce que yenn yi foo la ak fooy Sénégal kon tey kilifa yi ñu doon wax na leen wax leen ci affaire yi wax leen ci affaire yi tey war nañoo mën a wax ndax ku ci nekk sa digganteeg yàlla yow soo toogee analyser sa bopp rek xam nga luy dëgg ak lu dul dëgg. Mm-hmm. ok mais mais mais Baye Mbaye MC euh, euh, Adji Sarr dafa defoon ci audio yi ay révélation yoo xamante ne euh, Sénégal yëpp dañ koo dégg. waaw muy wane ne mbir mi complot la maanaam lam parce que ci biir audio yooyu daanaka leeral na ne euh, moom mook Sonko sequñu dara léegi dama dégg ci biir euh, mbir mi ñuy tudd ay vidéo ay vidéo yoo xamante ne ñoom dañu waxoon ne yor nañ ko dem nañ ba ne yor nañ sperme Ousmane Sonko. maa ngi lay Mass maa ngi lay waxaat benn affaire. waaw man avant may ñëw ci Adji Sarr nii di génn ay affaire am. Mhm. fekk na maak Adji Sarr waxtaan nañ ci loo xam ni. pour nu ñuy def man man damaa da man man mii di wax ak yow de. waaw ku sell ki damaa pare woon pour tëj ko. Mhm. ah bon. ci Adji Sarr laa gën a mën a féete o parce que sama doom la. Mhm. dama fa nekk xam ko miin ko. boo doon jàppale daal aji Sarr ngay jàppale moom mi la gën a jege. su may doon jàppale man Adji Sarr laay jàppale. Mhm. parce que aw ma lu ma koy bañee aw ma lu ma koy dama ko war a gën a bëgg. ok ndax ñoo bokk fu ñuy naanee. mais dëgg moo neex yàlla bëgg nit ba jaral la fen yow mm. nga perte yowmal qiyaam loolu kenn jaralu ma ko ci kaw suuf gis nga révélation bi may wax ni waaw aji ba muy nettali mm-hmm. li muy nettali dëgg la ci moom aji dafa dem ba ci biir mm-hmm. lim jàppee woon affaire bi coow li yëpp dafa yàppoon ne yëfu affaire mosu deux cent mille la trois cent mille mm-hmm. mais ba mu gisee ne yóbbu nañ ko ci hôtel boobu nga xam ne mooy Mamour lekk yi di ñëw ñu dugal la ci oto di la yóbbu fu nekk mu gis pouvoir boobu neex rek mu commencé gën a dugal boppam. Mhm. waaye lim nettali ci rajo lim nettali ci audio yi. audio yi waaw lépp ku dëgg la ci moom. Mhm. ku dëgg la moom. ok kon loolu maanaam maanaam maanaam mooy fësal mooy fësal ne mbir mi daal complot bu complot bu leer la. waaw kon est-ce que est-ce que est-ce que jaroon na jaroon na ñu dem procès. maas waaw. maas. Mhm. foo ngay foo foo ci audio. lan moo ci jar dëgg yooyu. xanaa sooy foo da wax leneen. waaye foo di foo di tudd ay nit di wax loo xam ne niru naag li nga xam ne lii luñ doon ñaaw njott la nga ñëw leeral ko ndax loolu foo nekk na fa dañ waxante dëgg ngay nettali loo xam ne dafa concerné dafa dafa dafa bokk ci li ngay def mhm. xaw na yaa ngi nettali bay tudd ay turu jàmbur naan ay foo Mhm. nañ bàyyi seen caaxaan yi tañ dem jël xale bi dem yóbbu ko yar ko. loolu teg ko ci yoon teg ko ci kafa gi bàyyi waxam loolu wax juge bi li mu li mu doon wax ak Baye Mbaye ñeeg maanaam stratégie la woon da doon fo. waaw te foo nag ba am 18 morts moo jaaxal Sénégalais yëpp mais Sénégalais yi bëgg nañ xam aussi est-ce que Baye Mbaye ñees MC yor na dafa yor yeneen audio yu gën a mën a leeral Sénégalais yi li xew barke alquran al kari mhm. billahi wallahi tallahi xam nga man tamit lu may lu may am am am am nekk nii tamit mhm. damaa am ay kilifa waaye senegal mooy sama kilifa tamit waaye nag am naa kilifa mhm. gis nga wallahi al maas laa la wax xam nga man nit koo xam ne laa damay aalu maa la wax am naa yeneen audio yoo xam ni. Hmm. moom mu may saraxoog yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni maa ngi ko amee. barke hmm. alquranul karim. ah mais mais audio yooyu doo ko teg sénégalais yi xam. parce que aussi parce que aussi fii situation bi toll mu mën a nga baal ma situation bi toll euh, confrontation mën a am entre Ousmane Sonko ak euh, force de l'ordre yi euh, dossier bi 14 18 personnes am ñàkk seen bakken boo yoree ojo yoo xamante ne boo ko tegee ñëpp xam ne mbir mi dina mën a sauver ay nit mais bàyyi ñoom bàyyi ma ci ñeem si nit mais audio yi da nga ko war a teg. Mass li nga wax dëgg la. Mhm. waaye dama lay wax ne la gis nga Sonko mi suñ jëloon jant bi teg ko nii ba ñëpp gis jant baa ngi nii sonkoo gis ko mu leer nañ. Mhm. terewul Macky bakkanam bii. Mhm. jëlul bakkanu Sonko bi du am jàmm. li nga wax garaaw na de. yéen dafa am. non dama lay wax loo xam lu am laa lay wax tant que Macky jëlul bakkelu Sonko nga wax. dama ne la. fii mhm. Sonko di dund nii. Mhm. soo génne téeméeri ojo yoo xam ne dëgg la. Mhm. nga wane ne lépp ba jant bi nekk nii ñëpp gis na jant bi lii yëpp dëgg la. pour yi gis loolu fi ak jëlul bakkanu Sonko ñu rey ko mu dee. wala ñu tëj ko damm caabi ji. ba nga xam ne du génn même suy sénégalais yi fekkee ne cent lañ. Mhm. yaa ngi dégg quatre vingt dix pour cent yëpp di dee. ok nekku ci. Mhm. loolu yëpp mu koy indi mooy protéger liñ jot a jël ak liñ jot a def. Mhm. ok ok kon kon dafa garaaw. kon situation bi xaw na doy na waar intérêt intérêt alal. intérêt intérêt am-am. am am jaral la yeneen ay peuple di dee ñu seen yoon nekkut ñu ci seen nangam nangam nekkut lépp mu jaral la rek. pour intérêt alal joo xam ni ay baadaloloo ñu woon ñëw nañ ba tibb am demal ngir yàlla ci jàmm ñu baal la ñun Sénégal ak li nga jël yëpp mhm. waaye nga bàyyi Sénégal ci jàmm ok mhm. sa sa sa sa wax ji xam naa dina tiital internautes boo ne boo boo ne boo li ngay ko ku la dégg day jàpp ne fu mu toll nii euh, président Macky Sall dafa taxaw carrément pour euh, naxasal Ousmane Sonko wala pour pour tëj ko ci kaso bi dama fu mu nekk nii laa la wax nii nii nii nii. actuellement man maa la ko wax maas jëlal. waaw ñu toll nii hmm. gis nga démb atte bi xam nga ne ay atte foo la xam nga dara nekku fa. mais hmm. terewul bëgg a jàpp Sonko. Hmm. danañ ko jël pour tëj ko. wax loolu parce que li leen di ar Macky leen rek moo ko arrangé. sëf Sonko. sëf Sonko ku nekk bokk ba mu des Sonko ndax Sonko bis bu gañee man da man Macky damay am problème ndax sama goro yi nga xam ne amuñ woon dañoo xiifoon. Mhm. nga xam ne fukki dërëmu fondé ca ca ndar pour nga jënd ko problème la woon ci ñoom. Mhm. léegi nag dem nañ ba am ay milliards milliards yooyu bëgguñ koo perte. dañ koo sàcc suñuy milliards lañ. Mhm. léegi nag lan leen la ñuy wax nañ rey Sonko rek suñ ko reyee mu jeex. dootuñ amati problème ku ñëw na continuer. ok Macky loolu rek la gis. te maa la wax ne la dañ koy tëj. kan Sonko. bàyyi bay ñeesee nga nga ne Sonko dañ koy tëj mais tëj Sonko est-ce que na jur jàmb ci réew mi fan nga teg ne nañ tëj Sonko. waaw loolooy wax ji xam nga lan lay def. Mhm. day jël par force ne nañ ko tëj pour yàqal ko. bu mhm. mu dem nekk candidat. Mhm. peuple bi génn di reyante. Macky yoonam nekkul ci Sénégal ñu dee. yoonam nekkul ci déggoo lu ma la wax. ay pour yow am na sentiment boo xam ne suñ toogee nii gars yi génn. Mhm. dañ leen di rey nee naa la pare na ñoo rey quatre vingt dix pour cent yëpp. Mhm. xanaa déggoo déggoo lu kii lu yërëm Seck ko wax. Mhm. déggoo ko yërëm nee na. wala kii moo ko wax mu ne euh, mais paa bu alaku boobu dëkk Touba nu mu tudd sama sant jaxate euh, paa bu alaku bi rek. nga xam ne. nga xam ne day siisu Moustapha Jaxate yaa ngi dégg. Moustapha Diakhaté eh, eh, Moustapha Diakhaté ñu war a rey ñu rey leen Moustapha Diakhaté yëkkati na kàddu yu rëy na ñuy tëj nañ leen war a tëj ñii rey nañ leen war a rey waaw war dem na ci mel Ousmane Sonko danañ ko jàpp tëj ko nag wax jooju nag paa bu boobu wax noonu muy Moustapha Diakhaté mhm. lam wax noonu loolooy dëgg gis ñoom dañoo pare pour jàpp kii rey sénégalais yépp bañ jeex toogaat ñoomu neen suñ fiy nekk sax mhm. doy na leen peuple bi seen yoon nekku ci Mm-hmm. ok mais mais lu ko fi jar lan lan moo ko fi jar Sénégal lan lan lan moo ko fi jar parce que duñ ne mais rey sénégalais yi pour lan ak ak ban cause éliminer soo ko pour lan. man de man de wax dëgg yàlla man. Mm-hmm. Mass dafa am lu ma jaaxal parce que man jullit suñ koy wax. Mm-hmm. Euh, suñu lislaam diine diine yërmande la. te diine yërmande googu dafa am loo xam ne toujours daf koy dawal man damaa gis ni. Mhm. jabaram mu ngi dem màkk tout le temps. Mhm. muy fay mhm. foo ko gis mu ngi teye kaamin ci biir ci kaw loxo bi. yaa ngi dégg yow yaa ngi julli yaa yow yaa ngi gis yow yaa ngi tëdd ak sa jëkkër di yeewoo ak moom di gis ni réew mi. mu ngi ci guuta goo xam ne nit ñi ñu ngi ci kii xanaa jabar war naa mën a taxaw na ko ah. mu ne ko ah mu waa tey ñoo wàññi suñu loxo lii ak li ak lii waxtaan ak moom. waaye dañuy gën a xàmb. moo lay wan na la li ñuy oote gëmuñ ko. Mhm. ay nit yu gëm gëmuñ yàlla. ok mhm. mais Baye Baye Mbaye euh, euh, gannaaw gannaaw loolu est-ce que wax wax ji yëpp wax nga ko ci Adji Sarr euh, parce que Adji Sarr est-ce que du victime parce que Adji Sarr moom liñ ko comme dañ koo waxloo di ko jëfloo. mais Adji Sarr ana ay mbokk Adji Sarr ndax yaa ngi dégg ay mbokk Adji Sarr bu mën leen wax situation bi ñu xam ko ñu est-ce que mbokk Adji Sarr xam nañ ne dañ koy utiliser ak li muy dossier bi yëpp xam nañ ne du dëgg du dëgg. ana mbokki Adji Sarr. waaw léegi léegi nag looloo la koy wan. Mhm. lii moo lay wan ne le dossier bi du dëgg. parce que yow man Adji Sarr dëgg la de yal na yàlla yërëm yaayam yaayam génn na àddina. Mhm, baayam a ngi dund. Mhm. ay rakk baayam ñu ngi dund maamam mu ngi dund. yow da gis kenn koo xam ne ku jógee koo xam ne jege na ko ku ñëw ku ñëw ci tribunal bi. loolu nag mooy jël nañ suñ doom saraxe ko lu mhm. luñ ci am jël ko gis nga gis nga gis nga baadoola dafa am foo xam ne mhm. su fa yeggee rek dangay xam ne ndeysaan saan nga ko yërëm ok xam nga soo ñàkkee amoo dara mhm. ñu lay jënd ci suuf dangay dem ba nga xam ne daf daf lay métti de waaye dangay dangay bàyyi say loxo bàyyi sa jaboot pour mu dem victime du mën a aji saar victime la waaye mun naa wax ne victime la ci politique boo xam ne dañ koo jël utiliser ko. Mhm. waaye Adji am na xel Adji dafa dem ba ci kanam. Mhm. mu nekk nit koo xam ne moo àndaat ak ñoom. Mhm. xam nga mbon dem di gis mbon àndaat dugg ci biir mbon. man loolu laa gis damaa gis ne kii commencement bi ba muy wax ak man di waxtaan ak man bëgg na cee génn bëggoon naa ko dimbale mais ba mu demee ba ci biir ma koy dimbale dafa dem ba pouvoir bi dugg ko ndax imaginel yow ñu jëlal la tubaab. boo xam ne tey yaa ngi bind livre yaa ngi pare di bind livre. Mhm. yow Adji Sarr. waaw ñu boole la tubaab boo xam ne moo lay. jàngal français déggoon naa ñu ne Adji Sarr day pare génn génn génn livre xaw ma kan moo koy bind livre boobu. waaw mais loolu yëpp aussi euh, xam nga li li jaaxal. Sénégal yi bàyyi tubaab bi depuis deux ans mu ngi fi. depuis deux ans mi ngi ci mi ngi ci bindum livre googu. may ma foofu ma ñëw. waaw Mass Mass may ma foofu ma ñëw. Ah, bismillah tubaab bi. nga wetu kër Macky Sall temps yi Adji Sarr dëkkee Watafont. Mhm. xam nga woto font ak ak ak kër uh, Macky Sall soo koy dox même pas trois minutes nga àgg kër Macky Sall. Mhm. Adji Sarr ba muy dëkk foofu lañ ko indil tubaab bi mu koy jàngal français di ko bindal livre. ah ñu indil ko beneen koo xam ne docteur sociologue yooyu la. Mhm. moo nekk ak moom. ndax su bopp bi tàngee nga xam ne moo koy dalal di ko defaral ak yooyu di ko dalal. ndax te xam nga dafa dafa métti tëj hmm. nii rek nga toog benn place su yàggee sa bopp bi explosé hmm. yooyu ñu ko doon defloo nag dafa dem ba dugg ci beneen lobby boo xam ne pouvoir boobu dafa am doole hmm. tey atte boo xam ne yow nga ne am nga ay mbokk gisoo kenn ci sa mbokk ñu taxaw lu dul ay maire yoo xam ne dañu leen a gis ci mbedd mi solal leen ay t-shirt matuñ siis ñu naan gannaaw raay laa jógee xaw ma nangam nangam. mais moo tax moo tax moo tax lañ wax nañ wax lañ moo tax sama laaj bi am solo Baye Mbaye euh, parce que dafa mel ni dafa am mm-hmm. ñaari aji saar aji saar bi ñu doon gis démb. Mm-hmm. ak aji saar bi ñu gis léegi dafa man ni wute am na ci loolu. waaw parce que aji saar bi ñu gis léegi nii vraiment euh, muy wax yenn wax yi ak aji saar mi ñu doon dégg ci audio yi muy wax ak yow di di di confessé wu dafa mel ni bokkuñu. mooy lu ma la wax El Hadj mm. moo koy jël naan ko waxal lii defal li moom mu yàgg xam na Adji Sarr tamit da ngeen di jàpp ne jàngut mm-hmm. doxut ci àddina Adji Sarr il foog ngeen xam ne benn xale la boo xam ne innocente la xamut luy àddina bi di riir mu ñëw ci réew mi bëgg-bëgg xaalis dugal ko ci mm-hmm. mu nekk ci yenn liggéey yi bëgg-bëgg xaalis dugal ko ci muy dem di seet nu muy def fa pour am yaa ngi dégg mm-hmm. kon kooku su ñëwee ba gars yi jël ko entraîné ko. Hmm. fu mu nekk nii Adji Sarr beneen la ñaari aji saar moo am. Adji Sarr bu njëkk bi innocente la. Hmm. waaw Adji Sarr bu njëkk bi innocente la. Hmm. mooy première fois ñu koy filmer gis nga mu ngi kaalaw xamul sax lu mu ngi wax mu ngi xulli bët yi naan ah ah, ah ba pare dama ëmb ma wax sama patron ah ah xool fii di xool fii xamul sax lu xew. waaye ci biir àtte bi ci biir àtte bi Adji Sarr bu njëkk ba. joxaat na ma am na benn image bu ndaw bu ma ko joxaat démb ma koy seetaan. Hmm. seetaan naan benn waay bu ko doon filmer tourné na ko aji mu tourné fekk mu ngi taxaw ak hmm. mu ne ko aji mais nu mu kiit boobu mu tiit daf maa jox image. Hmm. boo xam ne première image am leeral TV. léegi nag aji saar bii nga xam ne tey ñaar lañ. aji saar bu njëkk ba nekkatu fi aji saar bu bees moo ñëw. bi nga xam ne dañ koo ñemeloo na ko wowal bët. ok wax wax wax wax bu birleer rek. Hmm. yow bul gis sa bopp bul am kersa ci sa bopp. Hmm. yow naka ngay toogee mais ma maas nañ waxante dëgg kuñ violé. Hmm. nga bëgg a nekk jigéen joo xam ne ju baax nga. am na noo xam ne doo ko defee da ngay ànd ak sa personnalité yow yaa ngi def ay vidéo di tontu. di fecc di nangam ba nga jógee tribunal ba léegi. di snap di snap ak di tontu du cawarte. du cawarte. loolu du cawarte mhm. loolu dugal sa bopp la sénégalais yëpp gën laa bañ àddina yëpp gën laa bañ ndax mhm. yow amul foo tourné ci kaw àddina te xamuñ la mhm. kon aji Sarr li ma la bëgg a wax maas mooy El Hadj Diouf bëggul Adji Sarr El Hadj Diouf am ak Ousmane Sonko mooy bañ leen évité ca télé ba. Mhm. Ousmane Sonko waxoon na ko yow El man soo may évité day ma invité que ñu am programme ñu am xam-xam. Mhm. waaye genre gii bëgguma taxaw loolu El Hadj daf ko énal ki nga xam ne mooy usmaan ba léegi nii El Hadj lu mu bëggoon. Mm-hmm. El Hadj Diouf li ñuy wax nii yëpp ci aji parce mooy avocat moo koy défendre. Mm-hmm. du dëgg mais apparemment du aji Sarr. xam nga El Hadj Diouf lan lan du El rek. xam nga ah, El Hadj du El rek. am na Mamadou Diallo tudd na ci ñeneen ak ñeneen. que yaa ko yaa ko léegi complot bi yaa ne ju ko naqari. Mm-hmm. saaga woon Ousmane Sonko jàkkaalook moom wax ko lu ko neex loolu rek la bëggoon. El Hadj Diouf. ok loolu rek moo ko ci neexoon de. pare pare na ci. Mhm. léegi léegi léegi Baye Mbaye Niass euh, ci ci ci lii lan la mën a indi. Mhm. ci situation Sénégal parce que euh, Ousmane Sonko wax na ne mi ngi jóge Ziguinchor ñëw Ndakaaru euh, procès bi le premier juin le juge bi war a wax dégg nga procureur li mu jàpp procureur nee na dana nu nañu mhm. tëj Ousmane Sonko fukki at wala juróomi at yu mu tëdd ak wala Ndeye Khady juróomi at. léegi euh, loolu lan la mën a jural Sénégal ak verdict bi ñu ñi xaar aussi lan la mën a indi ci Sénégal. waa léegi man procureur bi ak juge bi suñuy suñuy àtte ci lan la ñuy àtte man looloo ma jaaxal ñu duggoon ci tribunal bi nekk ci tribunal dara umpuñu. Mhm. léegi sooy àtte léegi ana fay man dañ maa mhm. u léegi wan ma preuve yu ma la violé ana ñu ana loolu ci àtte bi. Mhm. leneen ak leneen ak leneen. ne la justice amu fa mhm. nguur gi dañoo demoon ba nga xam ne dañuy wane ne kenn du ñu défier ndax ñoo am doole mhm. seen atte ñu def seen procès par force mais atte daf fee amul te gis nga naa la wax leen na de mhm. Ousmane dañuy waxante dëgg rek dañuy xeex ak nguuru nguur gaa moo ëpp doole waaye ñu ngi xeex ak ñoom di bañante nit moom da ngay bañ ba xëy dee ndax liberté da nga ko war a am mais maa ngi lay wax na la bis bu ñëwee fii muy pro Mm-hmm. maa la wax maas nu ma la waxee ni mm-hmm. xalaa ñu delluwaat gannaaw de xam ne peuple bi pare nañ pour joxe seen bakkan yi mm-hmm. mais man maa la wax na la nii maas di nga ma jëlaat na ma MC Niass la nga waxoon moo am lañ mën a def ba rey ñi ànd ak pro ba jàpp pro tëj ko danañ ko def le premier bi ah. su fekkee ne le pro dana dem marche danañ ko ko def fuñ gisee pro danañ ko jàpp ah, maa la ko Macky fii tiimul pro ci biir kaso gi Mm, kon man maa la wax na la Macky Sall fii ak duggul du xaarul ba guddi dem dem Camp Pénal wala dem dem cent euh, mètres dugg team pro na ko hee maa ngi nii team la wallahi du am jàmm. ok man maa la ko mais li nga li nga wax yëpp mbaa xel du tey ci pro pro mi war a jóge Ziguinchor ñëw Dakar parce que euh, je pense que ne moom euh, dañ jël na décision. def benn marche boo def benn caravane boo xamante ne day ñëw dakaaru mais li nga wax ci risque yëpp aussi est-ce que wóor na aussi proche déplacé wu. loolu laa lay wax pro su déplacé wootoon su déplacé woon nii di ñëw. Mhm. mais buñ fàtte tamit nag buñ fàtte ne tamit nag armée Sénégal nag vraiment nag ay ay commando lañ. Mhm. buñ fàtte loolu ay commando lañ. ok gis nga suñ bëggee jël pro. dinañ ko jël yóbbu ko. Mhm. bon parce que buñ fàtte ne moyens yi ñoo bëri. ndax tey su fekkee ne pro day ñëw ci yoon bi pour ñëw. loolu moom du sécurité. voilà. wala àddina yëpp ànd ak moom. ok su fekkee ne sécurité am bi rek la. Hmm. gars yi su wàcc gis nga su wàcc ni danañ taal seen oto yi ñëw. Hmm. hélicoptère yi commando yi danañ wàcc. te hmm. par 4-4 jublu nii. téye seen fetal yi kon nu ma la ko waxee ci geer ñu ne ko coppet tànk ko buum bi hélicoptère bi xëcc mu dem moom na na dem rek ñoom nañ ko yóbbu rek. jeex na mais jàpp jàpp jàpp Ousmane Sonko. ci ci ci ci réew mi ak réew mi fi mu toll. loolu je pense que ne mën na jur. mën na jur musiba ci Sénégal jàpp jàpp jàpp Ousmane Sonko mooy àddina bu tukki. Hmm? jàpp Ousmane Sonko. Hmm. Ousmane Sonko laa la wax. waaw jàpp ko mooy àddina bu tukki. Gàmbi gii rek ñu dajeeg. Hmm. Gàmbi gii. waaw gëm naa ni jeunesse Gàmbi bi yëpp di gis danañ paas ñoom ay mille francs mille francs ñoom ñëpp dugg si Sénégal. Gàmbi gii rek laa parce que Gàmbi fu mu nekk nii. yaakaar na li ñu dal ci Sénégal nii moo leen dal de. Macky moo leen yóbbee lépp Gàmbi. kii rek ñu nekk. ok euh, Baye Mbaye li ñu desoon. jël sa jël Sonko. waaw. Sonko du mhm. li ñu desee ci waxtu daanaka jeex na euh, sa kàddu gi mujj lan lay doon lan ngay dénk askanu Sénégal mais aussi euh, lañ ngay dënk suñu kilifa diine yi nga xamante ne ñëpp dañu leen doon xaar ci ci dossier bi pour ñu jug wax ak njiitu réew mi wax ak opposition bi pour dal mën a am lan ngay ban kàddu ngay dénk askanu Sénégal. waaw askanu Sénégal daal lu ma leen di dégg. Mhm. mooy. ñoo nekk fii ñun ba pare naan leen dee leen ko jaayante ndax dégg naa nit ñoo xam ne dañ koy waaye am nañ xel. nañ bañ li nga xam ne mooy nooteel. Mhm. gi nga xam ne président bi mu ñu koy def. Mhm. te nooteel gii mu ñuy def ba nga jënd ay nit jox leen ay xaalis ñu bëgg a ànd ñoom ci nooteel gii ñu ñuy noot. nañ xam ne ñooñu. di ñëw ànd ak moom seen bopp rek la ñuy yàq. Mhm. parce que ñoom ñooy dem carte appui. Mhm. te terewut Sénégal day dem ba tey te Macky mu neex mu naqari ko même su jëlaatoon troisième mandat. te mhm. du ko mus sa jël su ko jëlaatoon sax yàgg-yàgg day dem. am ñu fekke am ñu fekkewut ok ok mais bàyyi na bàyyi xelam bu baax teg. waaw. na bàyyi xelam bu baax moom Macky Sall. Sénégal ñi ngi taxaw. billahi pro bis bu waxee bip moom danañ ko xolat moom day day day seey nañ defoon semal semalndoo gëm naa ne Macky Sall foofu lay mujjee. ah ñoom nee nañ force restera à la loi nañ li fi amoon du fi amaat force restera à la la ñu wax. waaye Macky eh Macky lu fi amoon loolu du amaat lu ko raw am na ko fi amoon lu fi amoon amu fi woon. te hmm. diis yaa ngi ne jeex na tàkk. li fi am amutoon police yaa ngi ni cocktail Molotov yi amutoon. Mhm. te police yaa ngi ni di waaj a dee oto yi mun dañ doon wax ne oto yi blende yi su ci safara ñëwee day sotteeku ndox mi fay nangam nangam. Mhm. seen blende yooyu ñu doon def yooyu yëpp dañ ko ana li ñu doon démonstration gis nga xeex ak sa peuple moo gën a métti. Mhm. ndax xeexal sa peuple doo jël fetal na da leen di rey. te xeex bi du jeex. moo tax Macky mën na ko na préparer defar ay bagage am te neen dem na. ok ok Baye Mbaye maa ngi koy yóbbante Baye Mbaye Niass MC euh, kañ lay ñëw Sénégal wala Baye Mbaye décidé gul ñëw Sénégal parce que fu mu toll nii jàpp nañ ne euh, fii Sénégal da nga fi recevoir ay menaces est-ce que par kañ nga pare pour ñëw Sénégal. wala euh, élection yi weesu. Mass. Mass. Mhm. waaw. man damaa bëgg mel ni sama maam la joor Dior Ngone Laati Diop. Mhm. ndax sama baay moom leneen la waaye mhm. sama maam la joor dinaa ko doon. Mass même su may tëdd ci kaso gi. Mm-hmm. barke Cheikh a Niass damay ñibbisi. balaa mm-hmm. élection fan yii rek dinaa ñëw. ok kon kon kon man maa la ko wax damay ñibbisi xaar nañu xaar Baye Mbaye Baye Mbaye Niass ak risque yëpp. te Baye Mbaye suy ñëw suy ñëw suy ñëw nii xam nga moom ragalu. waaw def laay fam nii. Mm-hmm. ñaanuma kenn mu dimbale ma. ni ma xeexee sama xeex man kenn xam nga man tey maas ma wax la lu gën a garaaw. maas ku am deux mille. deux mille soixante et quelques personnes. xam nga kooku su bëggee waaye damaa jël shababul fayda na leen seen yoon nekkut ci sama yëpp. Mhm. ci samay politique seen yoon nekku ci. mais est-ce que loolu du sacrifier sa bopp est-ce que loolu du sacrifier sa bopp te ngeen bàyyi ay menaces xam nga ne li nga yor Sénégal et puis yi nga yor euh, euh, internet yi ñu ngi koy wax nee nañu ojo yi nga yor yi des dañu bëgg nga génn audio yooyu senegal yi xam li xew li ci des yëpp parce que yor nga yeneen audio yow sa diggante ak Adji Sarr mais génneel audio yooyu. non non non mun naa am mun naa am sax benn saaga bu neex boo xam ne am na ko. Mhm. léegi nii mun naa am yow après su ma paree dinaa la dinaa la balancer benn saaga léegi. Mhm. boo xam ne moo ko saagawaat gars yi. Mhm. dinaa la ko yóbbul. waaw boo xam ne maa taxaw na ko waaye yaakaar nga ne di nga jot daal sax mhm. mu ne ma ma jot ak ma ñàkk jot nañ nangam ndayam fële ñoom ñëpp <laughs> déet waay xam nañ ma maa ngi ko amee dinaa la ko balancé mm. léegi maa la ko maa la koy ngi xaar audio boobu exclusivité maa ngi koy xaar bu baax a baax moomu di mbal mbali kura màkki mm. kura màkki moomu di mbal mbali mm-hmm. deux audio laa yoro soo bëggee mën naa la ko may trente deux mm-hmm. barka alquranul karim billahi wallahi tallahi ok mu téye mu téye sof. Mhm. moom kaay sof mooy problème am. ok. mën bu nekk France mooy problème am. Mhm. kon kon kon ñu ngi xaar audio yi mais Baye Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, di la di la sant bu baax. maa ngi mas maa ngi jéggalu sénégalais yëpp di wax ne alhamdulillah maa ngi ci jàmm. Mhm. di ñaan Sénégal yàlla def ci jàmm. defal ñëpp te télé boobu nga xam ne mooy wol yàlla sàmm leen ndax yéen ay jàmbaar ngeen. yéen a ngi taxaw di xeexal askan bi di ànd ak askan bi. Mm-hmm. yéen nekkoo leen ñoo xam ni seen dërëm yeeg seen ñaat dërëm yi doy nañ leen. Mm-hmm. waaye nekkoo leen nit ñu xiif nekkoo mm-hmm. leen nit ñu tiit. wax dëgg yàlla àddina yëpp a ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. parce que li ñuy métti yëpp fii lañ koy waxee te dëgg ji foofu lañ koy waxee te par parloo woo leen. muy nguur. muy opposition ñëpp ngeen yemale. Mhm. kon ñu ngi kontaan bu baax yow tamit Mass nga nekk ci jàmbaaru Sénégal yi. Mhm. ndax léegi léegi nga def ak débat ñoo xam ne dama lay seetaan ñu xoqatal mhm, la. commencé di kii ak yow waaye da ngay dem ak ñoom ba sës wan leen na leen lii sama liggéey la. absolument te ci yoon laa koy teg vraiment jàmbaar ngeen ñu ngi kontaan bu baax daal. Euh, di jéggalu ñëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm. jërëjëf jërëjëf Baye MC jërëjëf kontaan nañu bu baax. jërëjëf kon mbokk yi gis ngeen Baye Mbaye Niass MC lañ dalaloon ñu koy gërëm bu baax a baax a baax a baax euh, yéen nag live bi gis ngeen euh, révélation yi nga xamante ne yooyu yëpp Baye Mbaye Niass MC def na ko am na ojo aussi yu mu ne dina ma ko envoyé ojo yi ñu ngi koy xaar bu baax a baax mais euh, lii yëpp dañ ko def pour leeral parce que moom li mu xam ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr dafa nekk lu bëri te am na yeneen ñu mu denc kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen jox rendez-vous de masse boobu mais aussi li ci dëkk bi incha allah bi di ñëw asalaamaaleykum